ki ma taxawal defe naa gars yi Sénégal xam nañ ko Malal Signor Diagne RFM Malal Signor Diagne TFM wala boobu bu Griffe Futurs Médias mais balaa ñoo sori xam naa gëj a gise bi am na mais dañ lay jàllaat sa wayjur sunu wayjur Papa Golbert di ñaan yàlla yërëm ko xare ko aljana bépp mbindaa fan barke yonent bi sallallahu alayhi maa ngi lay ziar Malal. maa ngi delloo ziar bu baax ku baax. am nga jàmm. maa ngi jëm de. yàlla na yàlla yokk. amiin kenn du ma yàqal sama jàmm ci. waaw baaxul de jàmm de daa neex. bëggee rek moo gën a wóor moo gën a wóor waaw kay. mais bëri dama lay dégg kera ci reportage su làmb Lac de Guiers ak Eumeu Sène combat bi yaa ngi ko doon reporté yow noo gisee combat bi malal métti na de. reportage ba xanaa. waaw métti na lool sax. ñaar ñu taxaw di léewtoo nga ngay wax rek. ngay wax xam nga bu amoon action di nga xam fooy dugg ak fooy génn mais dañu ni zëmm rek taxaw doo réew nu fayewu fayewu nu demunu cëng dikku nu mbay laar 40 minutes sans compter yi ñu def pour taxaw te yow waroon noppi loolu moom yàlla na gëj ci làmb waaw combat yu ni mel yàlla na gëj ci làmb yooyu suqaliwul làmb déedéet. loo gis ni moo ni problème bi. ku ñu da nga bañoon na daanu. Lac de Guiers xam na ni c'est un lutteur attentiste xam nga dañuy jaawale défensif ak attentiste bu doon football Lac de Guiers équipe bu attaque la day taxaw yi la xaar soo attaqué mu dékku la contre attaque Eumeu Sène dafa jóge ci défaite ñëpp gis na nu mu daanoon contre Modou Lo te moo mujj daan Lac de Guiers numéro 2 mooy ki mos a daan sax d'ailleurs donc su ko Aga xoolee revanche jóge ci lu mel ne comme li daal diggante mag Modou Lo du ko song day taxaw dégg bi mu jeexee mu ni manager am lu tax ngeen taxaw loo ma mu ngeen ma bàyyi ma dem bëri ji du am jël donc moom dañ ko indi waajal ko tekk ci ay consigne mu de dégg ndigal bëree consigne Lac moo war dem jëli ko. mais loolu est-ce que wax est la lu tax ngeen téema yow mi ne ci géew bi di liwaatoo nekk sa adversaire su affaire yi mënta dem mënta dikk du wut beneen solution pour sa bopp. waaw mënoon na jël initiative personnelle am di comme que taxaw naa trente minutes affaire bi demul dikkul xaaral ma jéem dara mais tam bu jéemoon dara ndogal fekk ca dañ da nga bàyyi li la sant def li nga bëgg ndogal fekk la ci donc day am jeexi li gën a dara xam mooy mu taxaw benn place donc li euh, mu demee daal demee na ko doy na waar yàlla na gëj ci làmb ji. am na boo xam ne yéen waa groupe Futurs Médias yéen a ko tëgg muy guy gi ak euh, rëg-rëg. Hmm, waaw kooku combat loolu bu soobee yàlla bu rëg-rëg pare si li muy def si MMA bi dinañu soobu si signature contrat yi sóobu ci li nga xam ne mooy liñ ñu ci war a def yëpp dinañ ko tëgg tëggin woo xam ne ku ko gis di nga ni di nga ni lii combat lii organisation la lii xew-xew la te xam na nañu guy gi si am fay dam ak bëgg lamb ak defar lamb xam na nañu rëg-rëg ci lam ak faydaam ak mën a bëreem ak lu am expérience au niveau bi léegi donc dafay doon combat boo xam ni cin luy baax la nar a doon doom ruq buy sedd xaar nga fa li amoon kera am fa subhanallah yàlla isa la musal si loolu foofu kay prix dip mbaa nu bëree ba dugg boîte vocale kenn daanu waaw waaw am na ñoo xam ne boo leen laajee laaj naa ni ñu ne guy gi moo mën rëg rëg moo mën guy gi nangam sangam ñu bëri ci li may souvent laajte dañuy faral naan rëg rëg moo mën yow sa xam ak sa analyse su bopp loo gis ci wax jooju. waxoon nañu ni Ama Baldé moo mën guy gi ñu ngi koy fàttaliku ñu bëree bëri bu rëy Ama Baldé jéem lu ne lu mu jéem guy gi tegi ko tegal ko la woo koŋ daan ko ñibbi kenn xaatu woon ni guy gi dina ko da nga koy daan ñoom ñaar ay ay nawle lañu na ne waajal sa bopp ànd ak say mbokk ñëw bëre ñaan yàlla yàlla ku may ndam nga jël ndam ku may defet nga jël loolu te waajalaat sa bopp diw moo mën diw ci làmb ji amul fenn dara ab dafa sifle ni ko baa bi jeex na waaw ok dina am lu ma la laaj sénégalais yi ñu ma ko yóbbante malal buñ koy dégg si reportage football comme Real ak Liverpool wala Bayern ak Paris wo yu mel noonu ak malal bi ngay dégg ci làmb ji mu mel ni toujours booy def sa reportage macha dangay nekk en l'aise maanaam foo ci def fu ñu la ci teg rek nga wax li nga bëgg wax loolu foo ko jàngee. xam nga jàngul tëri leneen la boo jàngul ba pare di tëri xam nga loolu leneen la man reportage football ak basket laa jàng si sama papa si Ablaye Diaw làmb ji dama si wàll si mais reportage moom reportage la rek. góor gi dafa naan wax ni tes yeux photographie ta langue transmet sa li sa bët di gis la sa xel di analyser ci lu gaaw sa làmmiñ di ko jottali ñi lay déglu donc lamb nag dafa am particulièrement dafa am langage boppam dafa am vocabulaire am am ay yëfam lamb bokkul nag football football si benn terrain lañ koy defee lamb nag am na lamb am na tuus am na wayu géwal ya am na amateur ya loolu yëpp da koy boole def ko ci benn cin mais fexe ba boo koy yàq yàq ba sotti te it booy dem defi football wala nga def defi basket da nga nekk journaliste sportif point booy dem defi làmb ja da nga nekk journaliste sportif ak tuuti géwal loolu mooy affaire bi. kon làmb faw nga am loo rax. foog nga am loo waaw damay ci gaa yi ci ñoom Lamine nag ci gaa ñi te am lu ma àbb ci géwal gi daal di géwli sama bopp indi mi dugal ci biir jaxase ko moo tax làmb ji ba nga nekk beneen nit booy doole ci football ba nga mel na nga war a mel waaw football bi boo ciy def reportage sax nit ñi maanaam euh, match bi sax mën nañ ko bañ a seetaan mais nañ lay dégg rek. waaw loolu sant yàlla li ko waral nag mooy wolof bi ñu siy def parce que boo demee Arabie Saoudite arabe la ñuy làkk soo demee Corée coréen la ñuy làkk boo demee France France la ñuy làkk lu tax bu ñëwee Sénégal ñun def football ñu làkk france te fukki nit lay déglu juróom-ñetti ñu dégguñu tubaab donc da ngay wax wolof boobu ñu comprendre nga soog a wax tuuti ci mu bir man damay biir wolof ba mu biir ma indi tuuti tubaab parce que loolu mooy lu nu nàmp waaw kay. Andil Diop Joxal Ndiaye moom defe naa sa yëf la fi mu ne ñëpp a koy waxee moom reporter yëpp a koy jël ci yow defe naa. li Lamine Samba di wax mayonnaise la kenn du ko kenn du ko omelette dañ koy may dañ ko moom ne ku ne cappateen Sénégal kanam uh-huh. waaw kay. mais kontaan naa yàlla parce que groupe Futur Média la rek maawo ngi daw maawo maawo moom moom day daw rek <laughs> maawo faw nga taxaw wax fii parce que da da ngaa def lu rëy ah kii de bu na ma benn suur ci tele bi ma ñëw de grand ba ma ñëw ca tele ba ba jël ko fa benn interview xaw ma tey lu tax damay daw dama laa dégg sànq balaa may dégg micro malal mu ne xamul ci làmb dara nga waat ne ko ku xamul ci làmb dara duma ma diriger. malal <laughs> waaw. gis nga man benn way Youssou Ndour rek laa lay wax lu amul fulaak fayda man bokkuma mu ne Dakar sax boo ko dee jaay na nga ci am fulla damaa bëgg nga jox ma nopp bu baax bi bul ma jox nopp bu bon bi nga fi muy gis ni des fois ñenn ñi dama tey laa koy leeral fii après dootuma ci waxaat des fois ñenn ñi dañuy wax mais Lamine Samba lu tax defoo plateau bi lu tax defoo plateau bi lu tax defoo plateau bi ma ne leen ñun dañu am dream tim ñun dañu am laa crème ci sport dañ ci am laa crème xam nga la crème mooy lan. jërëjëf kii tey. presse bu mu demoon day diriger du jouer second rôle man que Salika naka noonu Alaaji Cerno Ndiaye Abdou Aziz moo Moodu mbay Garmi bi nga xamante ni sax dafa xaw a pousse laisser la place aux jeunes est-ce que comprendre baax ñoom ku nekk soo demee maanaam yow yaay diriger fa nga nekk yàlla dogal damay emboîté waat le pas euh, euh, euh, malal ñun Futurs Médias moomuñu ko dañ ñu fa embauché ñuy liggéey ñett mooy am dee dàq ñu mbaa ñu bàyyi dàq sax duñ dem ok mais malal est-ce que suñ borom tabaaraka wa bi mu yëkkatee lépp jox ko sallallahu taala alayhi wa sallam yonent bi kenn ku ci nekk dalaa baaw la nga am léegi nag xam nga lan mooy xew dañ fi dañ fi def benn publicité ñu bëri comprendre ñu ne RFM ak TFM benn lañ la preuve gis nga Mamadou Mouhamed Ndiaye di joge RFM di ñëw man may jóge fii di dem RFM moom muy jóge RFM di ñëw fii c'est pour wane ni benn kër la kenn ku ci nekk la ngay def sa morom mën na koo def waaye maa ngi lay waatal ci alxuraan man cuune du ma diriger. moo sax nga wax ko loolu. mënumaa def vingt ans ci métier nit di ci diriger waaye ak Futurs Médias xam nga lu tax ngay nangu parce que da ngay xam ne kay ñëw di toog yow la nga xam xam na lu ko raw. est ce que est ce que comprendre nga baax na iñaan gis nga ku iñaan du gërëm ku iñaan du du apprécier ku iñaan du sant pàcceer bu toogee tey defal la plateau da nga naan la ilaha illallah te bu subaa nga gis nga ñu relégué pas relégué o second plan nga gis ñu jiital ma lal nga gis ñu jiital alaaji Abdou Aziz nga gis ñu jiital ma man homme de terrain laa man terrain laa gën a mën plateau xaw ma comprendre baax ni ma la wax xam nga yaa ngi wax léegi malal di wax naan am njaay indil jóob am njaay indil jóob malal bu toog ci rajo di wax da sa xol dafay sedde parce que indi na touche boo xamante ne nii ci ci ci ci football musu fi am donc loolu noonu kan moo koy iñaane waaye yow kan nga mus a gis nga bokk ak moom équipe mu bañ laa paas Messi bi mu bokkee bi mu bokkee ak Neymar équipe dañuy paasante te ñoom ñëpp mën a football kenn ku ci nekk ci ñun nag da nga yaatal sa xol nangul sa morom est-ce comme comprendre nga baax ni ma la li ngay nangul sa morom mooy lépp lu kilifa yi wax ne ay eh, tey de plateau Malal moo koy diriger ñun ñëpp dañuy topp ci ginnaaw Malal tey Abdou Aziz mooy jiite ñun ñëpp dañuy topp ci ginnaaw Abdou Aziz sans rancœur sans xol bu bon tey Thier dañuy topp ci ginnaaw Thier gis nga lii ñuy def nii les mercredis de lii loonu lu kilifa yi wax noonu la ñuy def nous pour exécuter ces les ordres sans murmure ni refrain l'auteur qui l'en donne en est parfaitement responsable ka saalika naka noonu mais mais guy yàgg maar kii defe naa ne lu mu la wax si lam bind ko téere dafa am ci ñaari combat mu bu wax ak moom bi ci njëkk mooy mooy maama lamin bu lamsaar xam nga ko xam nga garga deux combat boobu taxaw na Vox Arena tëgu ko muy drapeau ji Papa Dieng ñaari xale yooyu ay avenir lañu ay avenir làmb lañu te moytul mbër mbër mbër mu ndaw moo gis xel maa nga ci mbër yu mag ya làmb joj dafam am fu mu leen di yóbbu nañu dànk ñu ñuy àndal ñoom li leen làmb jox ñu jël ko li leen seen génie moomu leen ko nañ ko fa ba suñ ko defee tig bëre bi ci yoon suñu bëree mu neex bu ñu xeexee mu neex bu ñu xeexee bëree mu neex ndax ñaari espoiru làmb lañu ñi ci mag bàyyi ña ca kaw bàyyi nañ leen xel. muy maama Lamine di garga maama Lamine dama koo gis muy xeex di wàcc di daw di riñaan. mais mbër mbër loolu la boo amee ouverture da ngay da ngay riñaan maa nga mii noonu la daan def di maa nga day fermer dox sa kaw xeex ak yow soo départ mu góolu la. boo defee ouverture du fa xaar la neen day ñëw maab la dañ wax bëre dóor waaye dóor wut bunt la. boo demee nag bëkk ngay bëree nga xam ne dafa dëgër wut nga bunt amoo ko boo sax da ngay saxal xeex bi nag ak contrôle bu baax mbër du xeex ñaari loxo déedéet. benn loxo rek vif vif maa ngi nii vif vif boo ñëwee ma ñàkk waaw bala ma lay tal sori nga bala may gees tu mën nga ma def lu ne mbër wan-wan lay xeex ba mu sax. sarga day nekk xale boo xam ne day lijjanti bëre dama ko gis ñu dóor ko ku bu metti mook Valdo mu génn ci. kooku dama ne la fu mbaal jaxasoo nañ ko woo mu lijjanti ko. sarga de lijjanti kat la. kon ñaar ñooñu maanaam bu leen di tàqale. bëre leen di tàqale. Eh, booy ma Modou Lo Ama Baldé Papa mais mais dama dégg Ama Kera mu ne juróom-ñaar ci man mbër yàgg a wax loolu ah da nga fàtte ni bataille psychologique dafa am. mbër jàkkaarloog yow ni la sama jabar la man ndax su sama jabar dina riposte bu ma bëggee def ak moom lenn sa 32 maa leen man peeru mariage maa leen man mbër yàgg na wax loolu boo jëmee xare nag tiital mbaa yëgal sa bopp ka nga jëmal ca xare ba nana la bàyyi xel lool Modou ne ko du ma ñeexu ñebe fu mu nekkee ñeexu ñebe Modou la du ñeexu ñebe ban ñeexu ñebe ñeexu kaani sax moo gën a saf. Modou Lo moo gën a saf ñeexu kaani. kon ko bëgg a daan nooy def. tu te prépares. lu muy def def ko ko moom. lu muy def defal ni moom. lu muy entre entraîner entraîner lu mel noonu boole ci lu raw loolu. loolu doon entraîner yokk ko tey teel tëdd. doo génn doo dem fenn. ku bëgg daan Modou noonu ngay def. sérieux serein. kuy képp kuy walaat war a ngi boo dajeeg moom di nga am loola bett parce que dafa fonk bis mën bis xam bis xanaa xamoo ni mën nga xam te doo fonk mën nga mën te doo fonk dafa dàmbee mën bis xam bis fonk bis waaw bu tëddee guddi moom lay fanaanoo mooy géntam bu yeewoo di dox moom lay doxaale mooy mooy soxlaam mooy pexeem waaye nag amul ñoom ñaar ku ci mënul daan sa morom. la amoon ca Eumeu Sène nag euh, Modou Lo mën naa am foofu mu daan làmb lu ne mën na ci am lu ne mën na ci am waaye li ñëpp séntu mooy ñoom ñaar dañ naan rànkum bëre xaw ma mu teel ñu jàppoo bëre xaw ma mu yeex ñu jàppoo bëre waaye mu teel ñu jàppoo bëre bu boobaa dama ragal ñu dootoo reporté. fan làmb day jeex yuuxu. da nga gis bu rëy ba pare jël dana ku gën a gaaw yaay daan waaye ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar ñëpp au top niveau na ñu ne état bi ñu yore fraîcheur physique bi ñu yore lu ne mën na fa am ne mën na fa am waaye nañ yàlla dolli jàmm waaye seetaan ko ci jàmm mu jeex ci jàmm loo koy wax lig ni ko jom lig ko lay booy seet jàmbaar yi fàkk tëdd moom la waaw lig jàmbaaru fàkk tëdd la de maa la wax loolu de.